waaye léegi dama doon poser question parewu ma lan nga yan regret nga am lan nga xalaat ne xëy na ba ngay nekk ministre de l'intérieur mënoon nga ko impulser mënoon nga ko initier mu gën a leeral gën a woyofal la la la la la compétition amoo ci benn regret. non je n'ai aucun regret sur ça parce que xam nga booy am regret lañ ci dugaloon à l'époque moo doon optimiser à l'arrivée le résultat bi ñu am on a eu pour la première fois une compétition saine avec cinq candidats tout simplement il y a élection bi jàll na ci yoon c'est l'élection bu ñëpp jàpp ne amul contestation ci Sénégal donc lu ma ci am regret danaa def loolu pare am boobu résultat di mu regret non bi nga jànkontewee de l'autre côté de la barrière ak problème mu problème électro yi ak processus électro bi électoral bi lan nga est-ce que toogoo nga ne tiens Euh, pour gën a euh, yaxanal pour gën a euh, rafetal démocratie bi pour gën a yombal compétition bi xëy na munoon nañu voter loi bi wala mënoon nañu def réforme bi. bon loolu danañ bu ñu bàyyee ba ñu jàll ci élection bi comme ni ñu ko daa defee d'habitude bu ñu yàlla tegee ci bopp réew mi bu boobaa am nañu modification yoo xam ne danañ ko proposer ci processus parrainage bi yoo xam ne du ko fësal fii.